jaamu yàlla rek mënu feeñ moo nu fi war a bàyyi itam kon nan teewlu bu baax dellu ci xel yi ko ci àdduna fii teen jëm kanam jëm kaw kaw xool sunu borom déglu sunu borom déglu yonent bi حي أدنى بدا وهي أنا خجل جدا خجل جلن خجل فن خجل جكن موت هم مساسلو جامو يالي ركل مفين دي لجي لا نوارا نخ مودي بغي يالله bëgg gu wër gu dëggu ci ñun ngir jaamu yàlla danañu ko wax topp yàlla danañu ko wax liggéeyal yàlla ñu ko wax waaye dara mënu see sotti ndara du jinaaw boo bëggee yàlla ba noppi te bëgg yàlla mooy li gën a wóor ngir ak bëggeel dafa am doole loo bëgg rek te muy dëgg ci yow loola daal lay bëgg a moom donte aw fas la sax boo ko bëggee bëggeel gu wér mu daal lay bëgg moom kon bëgg yàlla mi nga xam ne moo nu war moom moom loolu nañu ko def te moomeelu yàlla dafa bari njëriñ lool ci boo nangoo te dara bañ la caa ba ñu jëlee ngir sunu borom dafa wax ne inna lasina xaalu rabbuna allahu suma staqaamu falaa xawfun alayhim wala hum yaxtanuun ñi nga xam ne nangu nañu ne yàllaay sunu borom te sax ca amuñu lu ñu war a ragal amuñu ñu lu leen di jàqloo dellu wax ne inna lasina xaalu rabbuna allahu suma staqaamu تتنصب عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحسنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون كنا مواملة سبب يالا هنا مواملة ورامو مواملة نانو قدف بنو قدف مواليو جنة جاي لكن مدرين خمينة توب يالا رتيلو أم جاي نان ما سيكي توب يالا تيرين يالا موي بوربو ما تجاون موي بوربو خمي كيفو كو فجامو أكيرين بايكو في سبب دم جامو جي لنين بول يالا kookee di jaamu ji yàlla booy booy boo di ko séenu dana ànd ak la muy jaamu fekk la fa yàlla soxla fa lu mu mënta ñàkk loo xam ne bu ko fa amee dana la wër ne du ko amee fenn kon nag ku nekk ci roon yàlla bu la fa dara jëlee nekkal ci roon yàlla te fa ci yéene la yàlla santaane rek nga nekk ci bëgg yàlla nan ko def wóolu yàlla nan ko def ragal yàlla nan ko def topp yàlla nan ko def liggéey yàlla nan ko def jaamu yàlla nan ko def bu ko defee suñu mbiri addina yéen suñu mbiri àllaaxira yéen adduna moom amul solo kenn ku ci la nga ci am suñu boobu noppi na ca dara mu dox sa diggante ak moom bu dee wërsëg bu dee daraja bu dee bu dee lu mën a doon suñu boobu noppi na ca dara mu dox sa diggante ak moom li am solo rek li am solo rek moo di moo di yàlla yàlla rek ma tawut li ci lépp moo nu ko ameel te kenn ku ne la jël sa cër foo nekk dana fa fekk moom ah waaye jël te tala di di di tal di tal adduna ba tëlatoo yàlla tëlatoo alaxira mën naa ñàkk dara jël ko la ca am solo ka la ca gënoon kay ginnaaw noon fag li suñu borom noppi na ci noonu suñu cër adduna moo na ko yoral la ca amoon solo kay nu bañ a tal adduna te tal yàlla tal alaxira te sax ca du nu yàqal dara. am na lu ma lu si sa waay doon ko nettali sëñ bi sëñ bi waaye lay maanaam moo di bàyyi sa bopp ak yàlla du wàññi kenn dara te doon naa loolu sëñ Tuubaa bàyyi sa bopp di du wàññi kenn dara te naa ci seere maanaam ba lu mooy loolu doy dig doomu aadama nag moo ñu jàpp ku jóg defe ne lekk naan rek moo nga war a su mbubb moo sol dañ jigéen joo denc kër ko am kër kër kër kër kër kër defante ak bànneex bànneex ak ñeent lañu bi dëkk ñun sunu noonu la parce que bakkan rek la lay xiir eh, bànneex mooy benn noon bi ñuy dëkk ak ñun benn noon bi ci ku jóg dugg adduna rek da ngay defe ne adduna rek fi ne ngay nekku fi ba tax sax sun borom dëgg la moo ko def ci coobareem waaye la war a yëf yi tëluñu yàlla tëluñu yàlla xam jéemuñu woo xam sax adduna rek la kon adduna musiba la mooy gàllankoor bu rëy bi mooy mooy mooy moo bokk ci noon yi ñeenti noon yi saytaane doo na ñëw saytaane li muy am am am kattan bëgg lépp ñu ngi ci li mu bëgg lépp maanaam noo ngi ci kon noppal yooyu noppal nañ seytaane sunuy noonu lañ yu bon yoo xam ne noppal nañ seytaane ki yées ci ci ci ci mbindéef yi te jël yàq gi nañu góorgóorlu bu baax xam li xew nañu xam li xew nag ñàkk xam rek dafa nekk waaye ku xam jóg ku xam fëx fafirroo ilallah inni lakum minhu loolu la suñu borom wax lu fexe leen jëm ci yàlla man man kan maa leen war a xupp maay seen xuppkat bu mag bi te bu xuppkat bu wér laa laa xanaa ko wax dëgg loolu mooy dëgg musiba la lu ca bari ak neen la maanaam maanaam maanaam lu mu lu leneen lu jëmul ci yàlla nen ngay jàmm ja neen nga mooy jàmm ña da ci lépp xisaab daan bëggal ñaan si yàlla musal ci barkib sëñ Tuubaa sant bu baax ñu suñu borom booleeg sëriñ bi sant bu baax sëriñ bi ñu ko war lépp def na ko digg mu borom digg mu jàmm waaye nag dina war a xam suñu bopp ñun ñoom ñii وانا نخمس البق بخ مخمس البق دني وعين دني وعين من الاسلام انا لك نايم ففرك الدنيا مهم المسلم